bu dee laaj bi bi mu laaj nag mooy mbirum xàmb mbirum xàmb aada la boo xam ne aada africain la xeet boo gis am na xàmb te nañ ko aadoowe waaye du ñëpp am ay cent vingt et yi am nañ aada bu tudd ay xàmb muy ñu tey def ay ndëpp nga xam ne boo fa demee dangay ngay gis ay kuur ay ay ay ndaa fu ñuy tur ay soow di fa rey ay ay ay ay ay ay ay gàtt mbaa ay nag mbaa ay bëy ngay di ko tuur ñu gëm na ñoom loolee man na laa faj boo feebaree boo tëjoo mën na laa tijji boo umoo mën na laa ubbi yeneen ak yeneen ñu fay dem am ñu fay dem di sangoo mbaa ñu fay saraxe boo feebar ñu mën la yóbbu def ko ndëpp gi ni mel aada bu fi am atteem ci diine mooy dafa xaraam daganut daganut te bokk na ci bokkaal yi gën a rëy parce que confiance ba ngay jox xamb yi yàlla képp ko mérito am na si ñoo xam ne sax même bu ñuy tukki dañuy dem tàggoo ca xamb ya bu ñuy tukki dañuy dem tàggoo man gis naa ci koo xam ne bi mu demee armée bi mu demee armée ñu daal di koy recruter mu nekk ci armée bi maanaam balaa ma yem armée daa tàggu dañ yóbbu ci xamb ya mu toog ci njaq MMS Pro mu ne maam ñu ne ko neel sëb sëta ñëw ngir tàggu la ngir dem ci armée muy tàggu di wax di tàggu mbir mi bi mu paree ñu ne ko looy neexale sa maam maanaam daa am looy joxe imaa nga indi soow imaa nga jënd firi imaa nga rey gàtt imaa imaa moom mu nekk ci armée boobee bañ war koo nommé colonel bis biñ ko nommé colonel dafa dellusiwaat ci maam ji mooy dafa dellusiwaat ci xambu yi di ko sant ak gërëm di ko féddali ne maanaam gis na ak jàppaleem daal sëñ bi loolu yàlla rek ko mérito yooyu lañuy def boo feebaree nga gëm ne xambu yee la téye faw nga dem fa sangu fa neexal leen tuur fa deret rey fa gàtt ngir ñu bàyyi la léeg-léeg ñoom seen jëm bopp den maanaam du dara du ab nappaate bu ay jinne di napp ay nit ñuy ñëw di leen jaamu foofu ci biir xam loolu kese bu ci bu bi noonu la bu joolaa bi noonu la bu dee joolaa yi boitaa sacré lay tudd bu joolaa bi noon la bu wolof bi noonu la bu lëbu gi noonu la bu séeréer bi noonu la bu dee bu séeréer mooy tudd fangool fangool paax noonu lañ ko tuddee yooyu yëpp nag jaamu keneen ku dul yàlla la yaakaar keneen ku dul yàlla la jullit waru cee faatu jullit laa wax waru cee dee dañ ko war a bàyyi la yonent bi la sunu borom waxoon ci alquran baraatu min allahi wa rasulihi ila alladina ahadtum min al mushrikin dañ ko war a wax dañ ba sa ucci ci loolee ak ta ñooñee daal di dellu ci sa borom yàlla jaamu ko te wéetal ko gëm ne lorog jëriñ bi bàyyi ko ful ci moom boo ci bëggee dañ nag ñun personnellement dañ lay tàqaleeg moom doo ca fay dara te incha allah du am benn danger wala retour bu yi la ñuy nettoyé jële ko ci kër gi génne ko ci kër gi jële ko fam nek nettoyé ko bam set dàq jinné ci kàttanu yalla fat la yow mi tawat tàqal la mbir yi te doo ci fay dara lépp gratuit wallahu alam bu dé ki jëm ci kuy kuy set kat bi mbaa kat bi gëndal kat bi kat bi dégg ki rëdd ci suuf di wax ëlëk ki ngay woo téléphone muy xool ci ndox di la wax ak ki ngay tàllal say loxo muy xool say loxo di la wax ak ñoom ñooñee ñëpp yonent bi nee na déglul encore hadis la boo xam ne al buxaari ak muslim solo nañ ko yonent bi nee na man ataa arrafan aw kaahinan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal lahu salaatu arbaina yawman muy wax ju njëkk ñaareele wax ja yonent bi nee na man ataa kaahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kazaba bima unzila ala muhammad rasulillahi mi yàlla yónni woon day nee na seeti ab seetkat mbab maaman mbab bu xaabakat laaj ko dara laaj ko rek la wax laaj ko dara mu tontu la nee na ñeen fukki fan yàlla du nangu say jaamu yàlla nee bu fekkee nag da nga koo laaj mu wax la nga gëm lam la wax nga daal di koy gëm mu seetal la gisaan ne la lam la wax nga gëm donte gis na la mbaa gisu la mais gëm nga lam wax yonent bi nee na weddi nga diine lislaam weddi nga alquran nekkatul jullit kon seetlu àndul ak ngay gëm yàlla subhaanahu wa taala jërëjëf li ñu bëgg a bàyyiloo xel nit ñi mooy li mu wax nii sànq am na am na ay seetkat yoo xam ne xamuñ dara duñ la gis waaye daf ci am ñoo xam ne dañoo xam dara loolu foo ñu leeral maanaam tere gi ñu la tere seetkat yi dugut na ñoom xamuñ dara de maanaam lislaam moo la tere ngay dem di gës kumpa loolu lañ la tere yow léeg-léeg nga seeti ab seetkat boo xamante ne nii wax ba wax bi nga mel. MMS Pro 221. léeg-léeg laa wax nga seeti ab seetkat boo xam li nga sa da la koy wax li nga denc kër ga sax da la koy wax léeg-léeg nga seeti ab seetkat boo xamante ne nii na laa wax say mbir fekk fukki at ci day am mu la am nga ñaari soxna soxna kenn ki kenn ki ñuul am nga benn bu góor day nekk mel la ko maanaam nga seeti seet seetkat mu lay wax mbir yi nga xam ne xam nga ko loolu dëgg la loolu amul solo loolu du dara ci mbir mi waaye dem da nga fay dem lañ la tereew gas gi ngay gas kumpa gi loolu lañ la teree loolu la am tere ndax boo ko defee da lay dugal ci yeneen i problème yeneen i problème yeneen problème xoolal képp koo xam ne tàmm nga di dem ci seetkat yi xoolal li ma la wax ki ëpp ay problème yu bopp ak xel mu jaxasoo mooy ku gën a mën a dem ci ki la ëpp intranquillité ki la gën a mën a nekk ci jàmm maanaam ki gën a jaxasoo même boo amee ñaari soxna soxna yi ëpp problème mooy ki dàq dem ci sekkal ki gën a mën a dalal xelam toog ci sëyam sëy mooy ki nga xam ne waxul ci jabarkatu dara maanaam dañ lay jaxase perturbé la maanaam yow bu nit saqatee sax nga ne saqat ba maa tax mu saqat yooyu moo tax l'islam ne la bul ca dem mais effectivement mën nañ laa seetal gis la donte mën nañu ndax yonent bi alayhi salaatu salaam nee na kadaba wala sadaqaka waxut dëgg donte wax na lu dëppoog dëgg yonent bi nee na waxut dëgg lu jëm ci sangu nit ki des na ko jàngal alquran ci ndox ëf ko mu sangoo ko des na ko ko bindal ci fooy yi mu xooj ko ci ndox sangoo effectivement man na ne donte am na boroomi xam-xam yu ko dàq waaye lu gën a ci boroomi xam-xam yi dañ ko saxal bokk na ci ibnu qayim al jawzi ibnu taymiya cheikh al uthaymin ak ay yeneeni boroomi xam-xam yoo xam ne nee nañu des na jël fooy bind ci al alquran laa wax bind ci alquran bind ci saar mbaam aaya boo xam ne maanaam amul yokk dara amul wàññi dara amul rax amul dugal ak génne roof ak roppi ajak lonk ak dëngal ak wengal ak juutal ak taxawal amu bu leer la ñu bind ko ci fooy mu set wicc bu ma sama oto bi jege woon léegi ma wan la ko fooy lay doon ñu bind ci alquran bu leer parce que léegi-léeg nit day nekk Europe woo ma téléphone jàmbat ma dara loo xam ne wóor na ne kii buñ ko jàngalee saa sangam ci ndox mu sangoo ko incha allah njëriñ mën na caa jóge par rapport ak muy jàngat mais butéelu ndox yi du jàll gars yi ko jàllale da ngay def ko ci papier lem ko jox ko. bu àggee mu mën koo sotti ci ndox mën koo sangoo incha allah day am njëriñ. MMS Pro 221 day dellu ci saar aaya bi imaam jàngoon wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa dañuy yàlla nee na def naa ci alqur'an lu la mën a faj. fajoo alquran day delu ci jang ko ci nit ki euf ko ci mom jang ko ci ndox euf ko ci man ko nan ba man ko sango ba nga bind ko ci foy def ko ci len ci borom xam-xam ni neenu ñu man na ne la mënta ne kay moy jël foy def ci ay yef yefan bam mu noppi ne la lii alquran la lolu moom moo mu dess nak fo kay sango lu upp ci borom xam-xam yi day neenanu fa kay sango na doon fo xamne fu set la ngir ormalé ko alquran ja ñenn ñi ne mën nga koo sangoo fu ne ndax ndox moomee di bàyyi koo ci saw yaram di tàpp ci suuf si donte suuf soose daa am sobe boo jàppee ne jëmmi ndox mi maanaam jëmmi alxuraan bi moo ngay dem ca sobe kon bu boobaa jëmmi jaxase koog ndox mi sax du jaadu parce que boo xëppoo ndox mi ndox mi day jaar lenn ci say di ko laal di dem xam ndax dégg ngeen li wax am na boroom xam yoo xam ne dañ ne buñ la bindalee am ndox mu jàng alxuraan baa ñu bind ci mën nga koo sangoo fu ne fu ne mën ko faa sangoo fu la neex ndax li ko waral mooy la nga xamante ne nii moo bàyyi ko ci alxuraan gi nekk ci ndox ma nekkut lu bët di gis maanaam liy bàyyi ko ci alxuraan bi di dem ci ndox mi ba man laa faj ba wutale ko ak meneen ndox mu dul ndox moomee loolu nekkul lu bët di gis nekkul lu loxo di laal nekkul lu bakkan di xencu loolu leneen la barke boobu leneen la kon loolee kenn mënu koo sobel kenn mënu koo sobel moo tax foo ko sangoo baax na té attention Sénégal ngay nek ñu lay jox yoy sango nga naan bu ko sango ci douce nga man ko sango tranquillement mais amna réew yo xamné bo sango ci douce bi doo foo sangoo de <laughs> Sénégal ngay toog rek mais réew yo xamné bo démé do sa mais li gën té nga man té dara sam xel moy nga dem fa amut sobe comme man na né dara di fa sango wallahu aalam laf cat tubaarakallah laf cat kaar macha allah yéen a ma sha allah laf cat yonent bi alayhi salatu wassalam nee soo gisee lu la yéem ci sa mbokkum julit nee na ñaanal leen ko ci barke ñaanal leen ko ci barke maanaam mbubb moom sol comme sama mbubb mi maag oustaz sol mbubb nii mu rafet lool nga ne ñëw ne oustaz sa mbubb mi day macha allah yàlla la ci yàlla bu defal barke mbubb mi rafet na lool noonu la ñuy apprécier jullit noonu lay apprécier saay yow macha allah sa oto rafet na de macha allah yàlla na ci barke baarakallahu fiik yàlla yàlla barkeel macha allah rafet na de kër gi macha allah rafet na de yal na yàlla barkeel maanaam yaa ngi wax macha allah di ko ñaanal barke yonent bi du am lor gu bàyyi ko saw làmmeñ ci moom yàlla nettali na ko ci suratul kahfi wa naka loo xawee sax a billahi minash shaitani rajim walawla is daxalta jannataka qulta macha allah la quwwata illa billah benn waay la soo xam ne daa dugg ci tooram gis tool bi naat lool meññet ñu bari lool mbir mi rafet mu ne xool leen sama tool bi maa mën a bay xool leen lii xam ngeen ne lii du jeex lii kenn mënu ci dara lii dootul jeex mu nelaw yi xëy suba fekk tool bi lépp dee lépp dee mu toog fa di jooy benn xaritam fekk ko fa ne ko pourtant bi la duggee ci tool bi gis mu rafet ba la yëg ne lii rafet na boo ne woon macha allah la quwwata illa billah dara du ko mën a lor cat du ko mën a jàpp làmmeñ du ko mën a jàpp bët du ko mën a jàpp loolu moo tax yonent bi nee na képp ku gis lu ko yéem mbaa lu rafet mbaa lu taaru mbaa lu baax sa bokkum jullit mu ne neel macha allah yal na yàlla barkeel mu ne bu ko defee cat du mën a bàyyi koo ci yow jëm ci moom mais gaañ moom dañuy wax léegi duñu wax sax macha allah boo waxee ñu ne macha allah moom daa am ñu koy askanale macha allah incha allah <laughs> mais boo gisee la yéem sa allah daal di la ngay tudd. dara du la ci mënoon kaar nak mom waxi wolof la tekki lu bari kaar yalla yalla lafal la ci walu ak ñaan la boo xamne mën na am yalla yalla lafal la maanaam yalla na galam gàllankooral la ci yalla la yalla lafal ci ma yalla yalla teunk dam damm ci ba du ak ci ci yow wa lolu ay waxi wolof la ñaan la waye laf ci kesse yem ca lolu mom du wax laf ci kaar kar waxal nel kar dede kaar du dara ma macha allah ngay wax. MMS Pro 221 yàlla lafal cat yëpp man na ne waaye macha allah mooy ñaan bi yonent bi jàngale nga xam ne lépp lu taaru mbaa lu rafet mbaa lu gis ci nit bëgg tudd na nga ca wax loolee wallahu aalam. barakallahu fiikum.